asalaamaaleykum yéen ñii seetaan mbokk yi ñuy seetaan Thiès 24 site bi nga xamante ni lu ñor askan wi rek moo ko tax a jóg moo leen defal tey benn reportage ci jigéen ñi ngeen xa góor ñi ngeen xam ne ñor saagu jigéen mais bala ñu ciy sori ñu bàyyi leen ngeen seetaan clip bu bi. waaye léegi nag ginnaaw seetaan ngeen clip ba pare ñu doxantu ci dëkk bi laaj waa askan nu ñu gisee nu ñu gisee nu jàngatee xale góor yi nga xam ne léegi ñu yor saagi euh, avant tout déplorable d'abord c'est déplorable et wax dëgg yàlla xamatuñu suñu société bi fan la jëm Sénégal fan la ñu jëm xawma ko on se pose tellement de question parce que c'est un boo xam ni ñu ngi koy bàyyi mu ko bay bayal di ko bay bayal mais mi ngi jéggi dayoo maanaa fi ne mi ngi tawli foo xamante ni doy na waar saa góor góor góor gu ni yëng yor saagu saagu jigéen et puis fier mel ni fierté la war nañoo jóg suñu mag ñi war nañoo jóg ci loolu. war nañoo jóg parce que mi ngi ëpp ay loxo daal. bon parce que normalement suñu suñu charte réew am na lu ci lu ci lu ci yoon wax dégradation des mœurs. am na loi loi yi nañ ko appliquer ci ci ci ci population bi te bàyyi naxas naxasal bi ak ak ak masla bi góor gu yor saagu jigéen ça c'est de la dégradation dégradation des mœurs am na lu ci yoon wax ku ñu gis nga koy def ñu teg la ci yoon mën na bañ a nekk nag vendetta populaire parce que vendetta populaire day indi yeneen mais ku kuñ ci gis ñu jël la yóbbu la police ñu teg la ci yoon affaire bi yam fii parce que mi ngi ëpp dayoo daal mu ngi ëpp. ah xanaa jaaxle. man damaa defe ne daal àdduna bi day bëgg a tukki ndax buñ demee ba góor di yor saak mel ni jigéen di dox ci réew mi te dérangé wu ko ñun wax ne mën nañu wax ne ci fin du monde lañ nekk ndax kilifa diine yi war nañ cee wax parce que man je me dis dañuy roy il pare ci benn soirée Wally Seck laa dégg ne dafa ñëw yor saak nit ñi nag di roy ci loolu moo waral xale yu góor yi def ko mode waaye bu fekkee yàlla daf la bindee moom waal yi ngay nit koo xamante ne ku siiw nga ñu bëri di roy ci yow ngay référence war nga mën a xool sa comportement sa habillement bala ngay génn parce que xale yi xamuñu dara dañu gis nit di dem xamuñu lu ko tax a jóg ñu ànd ak moom ca la muy nekk xamuñu ne kii artiste la peut-être jëlewu ko dara mais du royukaay bu rafet lu lu baax bu fekkee loo nag dañ ko jël ba bëgg koo def modd nañ ko teg ci suuf ndax léegi góor jigéen bi wër na réew mi tas na mujjub jamono lañu kilifa diine yi laay interpellé kilifa aada yi suñu euh, président de la république monsieur Macky nañu jël ay mesures ci lii ci ba muy teel ndax saak jigéen na ko yeyoo ca ba àdduna daan baax buñ demee nag ba góor ñi nag di def ay check down di sol ay yëre yu serré près du corps yëre yu tubéy ay ay jeune ne sais pas nuñ koy tuddee ay pain xaw ma nuñ koy waxee noonu loolu no déjà sol gi rafetul waaw waxatuma laa nag gàddu saak naan ñu ngi koy doxee ci biir dëkk bi boo ñu teg ko ci suuf te kilifa yi jóg si dès à présent luñ ci mën ñu def ko ci mu gaaw jeex fi ñu bañ koo sax continuer parce que lii moom du royukaay bu baax waaw. waaw boobu c'est un phénomène déplorable parce que vraiment en wolof waaw phénomène bu ñuy lu ñuy wax dëgg yàlla Euh, fii Sénégal suñu xoolee suñu euh, tradition ak ñi nga xam ne dëkk bi noonu la demee si wàllu diine franchement am na loo xam wax dëgg yàlla duñ ko duñ ko rafetlu daal ndax saag boobu saagu jigéen la kon góor ak jigéen kenn ku ci nekk daal li nga li la tax suñu borom bind la am na lum la boole te buñ ci mënoon dugal sax tey dañ wax ni yonent bi doon na wax ni euh, laana laahu mutasabbihiina mina rijaali waxaat ni laana laahu mutasabbihaati laana laahu mutasabbihiina mina rijaali laana laahu mutasabihaati minal nisaa maanaam dafa wax ni suñ borom rëbb na jigéen guy góorlu ak góor guy jigéen jigéen kon góor bu yaree saak saaku jigéen tey mën nañ wax ni ah mu ngi jigéen jigéen lu kon loolu yàlla rëbb la suñu borom rafetlu ko diine rafetlu ko suñ cosaan aussi dëppwul tamit vraiment ak suñu culture suñ cosaan vraiment surtout tamit nga xam ne ñoom ñooy ñi koy def ay star lan euh, ay référence lan xale yi dañ leen di xool kon war nañ wane benn image boo xam ne vraiment nin ci xale yi dañ ci mën a copier mu mën a defar suñu en tout cas suñu demee daal ba àgg foofu tey Sénégal mën nañu wax ni vraiment ñu ngi ci la dégradation des mœurs muy yàqute jikko yi kon ñu gis ne jot na réew mi wax ci kilifa diine yi ak képp koo xam ne ku ñuy déglu nga nga yëkkati say kàddu ngir loolu daal bu mënee dellu ginnaaw wax dëgg yàlla deen ko ndax lu ñu lu ñu ñaaw la la daal. waaw man loolu nu ma ko gisee mooy ma rafetluwu ma ko te diine tamit rafetluwul loolu ndax léegi xale yi léegi même bu dul saag yooyu noonu ñuy yor di ko di di sol yenn façon sol nii man loolu moom moo njëkk a déranger déjà ci société bi léegi waaw ndax loolu moom dëgg yàlla rafetul te day yàqu société waaw loolu moom du modd sax nit sax warul sax surtout góor war na am yeneen comportement yi mu war a yor lu dul di yor ay saagu jigéen wala di sol solinu jigéen wax dëgg yàlla loolu moom rafetlu ma ko waaw merci. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp góor jigéen yi yore saak xam nga Sénégal dañoo tàmm mbir bu xewee dañ koy banaliser ba mujj gi mu ëpp loxo ndax bu njëkk dañ daan wax diw góor jigéen la du ñemee feeñ mbaa buy feeñit heure ba muy feeñ kenn du ko mën a gis léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen ginnaaw dañoo am doole ba pare am xel léegi ñu ngi yor saak di doxantoog moom ñu naan borom saag yi borom saag yi borom saag yi dañuy dem a dem ba saag yooyu nit ñi dañu koy tàmm gis miin ko ba finalement dootu dootu dootul am dootuñu ko jox importance bi nga xam ne moom la war a am ñi koy xeex dootuñu ko mën a xeex. finalement nag bu ñu demee ba saag yooyu sax ba yore ko nekkatul problème ñu wodd ju wuti sér takki takki jal jaljali comme ça nag ñu commencé waat nangam nangam ba mujj gi finalement affaire boobu euh, naax saay doole ja ñu doole séentu woon ci seen xeex dañ koy mujj gañe boo xoolee bu njëkk euh, ci wàllu banalisation xeesal ah diw day xeesal diw day xeesal diw day xeesal léegi finalement kenn waxatu ko fo lii tamit foofu lay mujj rek yare saak di doxantoog moom ci góor vraiment euh, fés na te lu fés nag wax dëgg yàlla nëbbootul comme nëbbootul nag finalement fu ñu mujj rek mooy saam ko ca marché ba ñëpp xam ni lii la te duñ ci mënati dara vraiment vraiment daal ak wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex loolu. war nañu taxaw ci affaire boobu ah trop de liberté nag tue la liberté waaw asalaamaaleykum